الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين مكوين أند سمسون برام سبحانه وتعالى من قام يكون مجلة كوي تيايو لب خيتي تشانس ndax li mu defal ci ay xéewal day kenn ku weetoon rek ngay lim la la sunu borom defal ci ay xéewal doo ko daj amul kenn ci kaw suuf ak li wër àddina bi lépp koo xam ni yërëm na la ba ko jot suñu borom defal na la ci ay xéewal lu jege sax la suñu borom defal kooka day waroon ngaa góorgóorlu moos ci mbooleem lu mu la sant nga taxaw ci lu mu la tere nga ba ndax lim la defal kenn defalu la ko mboolem ñi lay yërëm moom moo ca jiitu ndax ba lay yërëm booba ñi lay yërëm ñëpp kenn amagu ci woon loolu xeetu pas-pas la yoo xam ni ku ko fas day da ngay lu ci delloo njukkal sa borom te xam ni moom rek mooy ku màgg ki lenn ci cër yi mu moom dee su ko sédd di ko jox beneen doom aadama bokk na ci tur yu sell yu kawe yi nga xam ni sunu borom moo ko jagoo moo ko moom mooy tur woowu ñu tuddee al malik wala al malik wala malik wala malikul mulk yooyu yëpp daal boo ko doon tekki tekkiwut lu dul rek mooy buur moom lépp moom ñépp sañ lépp ëppale ñépp sañ ci ñépp lu ko soob te lu fi nekk moom mooko ko moom pàcc pàcc nguur yi moom moo ko pàccal ñam ko jox te lam leen joxit daam fu mu tàmbalee bis day ñëw mu nangu ko ca ñoom te moom besam amul fu mu tàmbalee te it nguuram du jeex ba faaw jàpp naa ni kum melal lii melokaan lépp luñ wax ci yow rek ci xeeti mbaax mbaax ak man ma nekk sañ-sañ borom xel yëpp war nañ koo gëm ndax koo xam ne nguuram gi ni mu yaatoo amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ku am nguur moo la ko jox bam la koy jox am na fu mu tàmbalee am na ab bu jeexee mu nanguwaat ko ak fu buur mën a buure ci àddina bi moo xam ci lislaam ngay jiiteeg lu dul lislaam jàpp naa ne kooke de melokaan wii rek buñ ko ko joxaloon bañ koo lu weneen borom xel yëpp danañ xam ni kii de ku màgg la kii de ku foor la kii de dama ko war a teg foo xam du ma fa teg kenn bal sax moom laa war a jiital keneen kuy ñëw doog a ñëw ca wàccuwaayu gannaaw ba sunu borom mi ngi wax ci suratul muminun mu ni fa taala allahu yàlla day màgg na te kawe al malikul xaq mooy buur ab dëgg bi moom sunu borom maanaam guur boo xam ne ak nguuram moom dafa valable tege ci dëgg ci amul fu mu tàmbalee amul fu muy yem ci kenn du ko audité kenn du ñu ko sa nguur gi soof na lu na fi jógee kooku kenn la mooy sunu borom la ilaha illa hu amut lenn nag loo xam ni warees na ko jaamu jaamu gi di indi njëriñ te mbaa ñàkk jaamu di indi lor te bon lu dul sun borom rabbul arshil azim mooy borom aras rabbul arshil mooy borom aras ju màgg ju tedd ja nga xam ne mi ngi tiim jaam yi yépp sunu borom mu ni ca jeexintalu suratul qamar ca fa daje fa sunu borom ca pee xéewal ya yàlla na sunu borom defal nu ko fi maqaadi sidqin sa toogu ya nga xam ni mooy toogu yu dëgg ya beneen toogu boo gis nag du toogu dëgg ndax toogu boo gis am nit moo toogee ko moo moo toogoon ba jug am nit ni ñokket dem nga doog a ñëw toog parce que buñ mën a fal nag na yëg ni bu dee poslu bu yees la musuñ faa fal kenn ki la war a folli mi ngi topp sa gannaaw bu dul loolu it am na ku fa toogoon kon bu fa jugul woon doo fa ñëw kon yëgal da nga faa war a jug pour keneen ñëw fa kon nag fii maqaadi sadiqin ca toogu dëgg ya nga xam ni place bu la fa jox moom vraiment yaa ko moom àjjana fa la toogu yi dëgg ya nekk nga xam ni fu ni la fii moom yaa fiy buur foofa yaa buur di bu mi ba faaw kenn du la ma fas jëlee a inda malikin muqtadir la waral toogu ya nekk toogu yi dëgg mooy daa nekk ca kër buur boo xam ni bu ami sañ-sañ la te man te lum la jox dootu ko nangu te keneen du ñëw di ko nangu sunu borom mu ni qul waxal allahuma yow sunu borom maalikal mulk yow de dëgg dëgg nag xool nañ ba seetlu waaye gis nañ ni yow yaa moom nguur nag moo taxit tuutil mulka yaay jox nguur man tashaaw ku la soob wa tanziul mulka yaay foqar ñi nguur li man tashaaw ci si koko soob subhaana rabbina al aala mbokk yi nanu ànd ñu def ak taxaw seetlu ci aaya ji ak waxin wu ñor wi sunu borom si ci ngay xam ne njëkkate nguur du dara xoolal yàlla bi muy joxe nguur dañu man maa joxe nguur waaw bi mu koy jël lu tax waxut maa ko jëlaat waaye da dañuy foqar ñi nekkate nguur ku ko sunu borom jox rek boo koy ñàkk dañ koy foqar ñi ci say loxo maanaam baat boobu muy tansi al mulk da nga ko ciy déggee maanaam borom subhanahu wa taala muy tuutil mulk mooy joxe nguur ku joxe kay da ngay jëlaat ku ne xam ne ni joxe dudd ba mooy jël waaye ba sunu borom joxe ba nangu joxee néewut jël la tax néewut jël mooy nguur guy jeex dafa soof parce que bokk ni ci gën a soof mooy nguur guy jeex bañ laajee yonent bi mbiram nguur dañ ah nampal ga neex na de waaye say teral ba nampal ga neex na waaye bisab teral ga xale buy namp day ma la mu bëgg waaye boo ko teralee indi coow kon nguur moom tàmbali ba ak digg neex na waaye teral ga ca la coow la nekk moo ko joxee nga nekk ci nguur ak nguur lu mu mën day neex waaye saa bu xëyee di ko nangu rek nag moom nangu gu met metti nag tey kéemaan gi mooy bépp nguur goo xam ni dafa tàmbalee ci pokkar ñi te lii may wax ni kenn ku ne ci ñun na ko seetlu dem leen ci réewi Europe yi dem ci réewu Afrique yi moo xam Côte d'Ivoire la moo xam Mali la moo xam ci réew yi nga xam ni yëpp ka jot nguur boo seetlu dafa coup woon boo seetloo jotin wu soof wa nga ko jëlee woon nanguñ wu soof woo wala lañ koy jëlaatee ci yow lii ku def ab seetlu da ko gis muy benn ñaareel mooy nguur yi ñu xam ci lislaam boo demee ci ak dawla al abbasi yi ak dawla amawi ak état yi fi tëdd taxaw gépp nguur goo xam ne nu soofee nii la ko borom jotee woon donte ci lislaam lay àttewoo nu soofee ne la koy ñàkkaatee yooyu nag doomu aadama yi waroon nañ cee xamee ni kon ndeke suñu borom yanziul mulk mooy fuqar ñi nguur da ngay xëy benn bis rek ndeysaan ci la war ay folli fekk mi ngi sarawee tànk comme na Moussa defoon Firawn kon tanziul mulk yaay fuqar ñi kon baata fuqar ñi dafa métti lool ah mimman tashaa ca koloso wa tuizzu yaay teddal man tasaaw ku a soob ndax da ngay jékki-jékki gis benn waay boo xam sàmba booy la xëy xëy daanaka nguur daal di koy yëkkati ba ku koy xool da ngay téen waaye watu zëllu man tasaaw booy fekk waa ju yëkkati woon ba ko koy xool da ngay téen bu koy jetteel ba muy jaaxaan day bett ñëpp ndax jàpp na ni koo xamante nii foo mas a joxañ ñu tag bu ñu xëyee ba di la pamti pamte vraiment yëf yi soppeeku na kon moo lay wan ni borom bi subhanahu wa taala mooy toroxal ku ko soob mooy yëkkati ku ko ko soob yal na yàlla yëkkati ñu ca la nga xamante nii mooy la muy gërëm mu ni bi yadikal xayr ci sa loxol la yiw nekk yow sunu borom ndax yow kat innaka ala kulli shay'in qadir yow moom lu nekk rek yaa ca am kattan yaay ka ko man kon ñu ànd yëg ni mbokk yi nguur melokaanu nguur ci melokaani sunu borom yi la bokk ndax melokaanu rëy la te rëy melokaanu sunu borom yi melokaanu foor la te melokaanu foor ci melokaanu sunu borom yi la bokk melokaanu yaa yilif lépp te kenn rek mën a yilif lépp muy sunu borom wax dëgg yàlla nguur googa moo waral mu moom la ca kaw moom la ci suuf ñépp nekk ay jaamam saa boo déggee ku faatu rek nga ni nañ ko jébbal boromam summa ruddu ila allahi mawlaahum wala ndax muy buurub dëgg ba kon jaam ñépp dañ koo soxlaal as-samad mooy koo xam ni ñépp a ko soxlaal ku nangu soxlaal nga ko ku nanguwul soxlaal nga booy julli soxlaal nga sunu borom booy yéefar soxlaal nga sunu borom ànd ak nguur nag yeyut muy am ci waa xam ni yoroo dund yoroo dee yoroo dégg yoroo gis ah mënoo santaane ñëpp maase def faw am ñu bañ mënoo tere ñëpp santaane bàyyi am odaasu nangami milliards yi nit ci àddina bi nga wàcce téere rek yónni bi yonente jox leen ñu leen def leen même bu ñu làqoon ci seen biir yi néeg sañu ñoo bañ mbokk yi loolu lu ko waral lan mooy ndayu nga tëju sa biir néeg kenn gisu la mooy yàlla gi ne fi mu wóor la ni tey jii man nga koo def ndax jekk nga ko nga takk sa sintiit ba mu dëgër lànk bañ koo def lu la ko teree def parce que am na looy bàyyi xel loo xam ne gisoo ko yuminuna na gayb ah yaxaafuuna rabbahum min fawqihim ñoom dañuy ragal seen borom mi nga xam ne moo leen tiim moo tax wa yafaaluna maa yumaruun dañuy def leen suñu borom digal kooku mooy buur mooy koo xam da ngay wét ba kenn gisu la waaye ba léegi rek tekkee kooku sañoo tekkee ko ah mbir mi da koy bëgg lool nga wéet ci weeru koor frigo baa ngi ci néeg bi sirwi yaa ngi ci néeg bi boo lekkoon sa soxla mi la gën a jege du ko xam te sañoo lekk ki ngay bàyyi xel ko ku foor la kooku mooy maalikul mulk jàpp na ne keneen ku mën a doon soron kilifteef ay nit ña ngi fay def ay looxi doona yu bari yoo xamante ni buñ la gisee la ñuy bu buñ la gisul duñ normal waaye am na ñoo xam ne nag moom bu ñu la gisee buñ la gisul dañuy normal parce que seen borom mooy rabbul alamin borom bi subhanahu wa joxe mooy xañe mooy maye di nangu di terale allahu akbar ku yàlla teral ku nekk tedd nga waaye gis suñu borom toroxal na nga torox wa man yuhini llahu fa maa lahu min yàlla mu ne ku ma lu ba toroxal la kenn dootu la tax a teddati ci kaw suuf wa man yuhini llahu ku yàlla toroxal fa maa lahu min mukrim yow moom dootoo teddati ba faaw yàlla suñu borom musal ci toroxtaange borom bi subhanahu wa taala jaam ñi moo leen di tawal di leen saxalal gàncax di yabal ngelaw ñu ciy noy te xoolal yi nekk nécessité yëpp allahu akbar borom bi daf ko def gratuit ngelaw bu ko suñu borom bàyyee woon ak société yuy jaay ndox bu suñu borom donte am na société yuy jaay bu suñu borom bàyyee woon teen yëpp mu fat mu nekk mbirum ndox ñii ñi di ko jënd jënd rek ndox boo ko ñàkkee dee nooyi boo ko ñàkkee dee yi nekk nécessité dëgg dëgg dëgg borom bi daf ko yombal subhanahu wa mu nekk gratuit ci suñu borom subhanahu kon lépp loo xam ni jaam ñi soxla nañ ko daf leen ko defal vraiment koo xam ne boo soxlaa ngelaw mu indi mu nekk gratuit boo soxlaa lekk ak naan mu yombal ko boo soxlaa nokki mu yombalal la ko jàpp naa ni kii bu diglee jaamu kuñ war a jaamu la bu nee maay buur war nañ ko koo nangul ndax buur boo xam ni bi ngay nekk buur nit ñi fekkeewuñ ko buur boo xam ni nit ñi fi lay bàyyi yàgg sa sa nguur nga dese ko te lépp lu nu aajoo buñ la ko ñaanee nga may leen ko jàpp na ni kooku bu nee maay buur war nañ koo nangul nguuram subhanahu wa taala ànd ak nag melokaan yii ma tudd muy melokaan yu màgg képp koo xamante ni amu ko rek kooku buñ ko waxee buur it ak nguuram nga daanaka nguur gu soof la ndax xam ngeen ne Haruna Rashid buur la woon bu màgg benn borom xam-xam bu mag ndeysaan bu am xikma ndax buur yi dañ daan faral di jël borom xam-xam teg ko ci sa pegg mu jël a xelal buur bi mar ndox benn bis daal di yónnee benn kaasu ndox bu sedd kaas bi ñëw ba dem ba di ko waaj a rek borom xam-xam bi jóg ni nikk kaas bi ni ko waaw sum la xañoon ndox ni la dootoo naanati ah est-ce joxe sa genn wàllu nguur gi ah ngir nga mën a am kaasam ndox mu ni waaw ko ne dinaa ko joxe mu ni waaw buñ boo bëggaatee naan ñu téyewaat ko ni la fii ak joxe woo beneen góor nguur genn wàllu nguur gi ci des ndax di nga joxe nguur gi pour naan kaasam ndox mu ne ko waaw waaw mu ne ko su booxul nguur goo xam ni kaasam ndox ko ëpp valeur kon kon boobu dégg-dégg nguur goo xam ne tey bi ñu la xañee kaasam ndox ndax yaa ngi waaj a dee nga joxe sa genn wàllu nguur suba sa ñu lay mayaat ndox xañaat la genn wàll ko mu ne ko su booxul nguur goo xam ni kaasam ndox bu sedd moo ko ëpp valeur te it nguur noonu la mel nag boo say nekk nag dafay neex lool bu la ko suñu borom joxe dafay neex lool da ngay joxañ ñuy dagg ngay wax ñuy def lépp formal la respecté la waaye gis nga bu ko suñu borom foqarñee da ngay daal di mujj nekkaat citoyen simple koo xam ne saan kaan la tax na bil ams da ngay dugg ci biir tool bi defe ni tool bii du moo fi meññoon kaan la tax na bil ams comme tool bi musta meññ fekk la ko waral mooy borom bi subhanahu wa day wane ak màggaayam mooy képp ku ñu jox tuuti rek bis day ñëw borom bi subhanahu wa taala daal di koy nanguwaat jaam ñëpp suñu borom la ñuy weeru ànd ak nit ñi nag ñetti xaaj lañ ci saxal góor suñu borom yonent ak ñi xam ñoo ko topp ak ñi gëm yàlla ñoom alhamdulillah dañoo saxalu dogal ñeel ko suñu borom ak xerañte ak mboolem melokaan yu màgg lépp luy sikk ak i ayib ak i manqué manqué ñoom dañ koy soril suñu borom lépp lu nuróole nit ñu ne suñu borom bokku ca ñoom nag nuróole wuñ ko keneen ndax beneen kuréel bu dul ahlu sunnat wal am na fu nuy diirandee mbagg ay nit ak suñu borom te loola ci yàqu pas-pas la bokk borom bi subhanahu wa moom def na li nga xamante ni moom boppam mu nekk buur nguur goo xam ne amul fu mu tàmbalee waaye peeg jaam ñëpp lu waay të të të bis day ñëw rek day saan euh, moom laa doon joxe misaal ma ne néew ni ñu koy defal yàlla fonkal mu ko defal moromam sax boo doon xeex ak moom nga man ko ah yow sa morom moo xam ne xëy na sax amaan na sax moo la ëpp doole ñu jàppal la ko takkal la tànk yi ba mu dëgër takkal la loxo yi ba mu dëgër sàngal la ko perkaal teg ko ci sa kanam waa léegi ko ñu defal ko yàlla subhanahu wa taala moo tax ma ne ni ñuy defal yàlla néew morom mun ko defal moromam sax nga war kaaman waxuma la nga suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ni bu loolu amul woon sax moom ab ndawam rek man na koo yebal ci mu faagaagal la xoolal rek baat yi nga xam ne ni mu tongalikoo noonu la baaxee tey wane màggaay suñu borom muy maliki rabbi nnaas qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas saar la wu gàtt boo xam ni ngi koy jàng waaye xoolal toggalugu rappalikoo goo xam ne day wane màggaay suñu borom ah rabbin naas mooy ki moom nit ñi ñëpp amul kenn koo xam ni génn nga ci moomeel ah moo tax boo toogee yàgg ne diw moo ñuy moom bu ñuy dund bu ñuy dee moo ñuy moom am na yoo xam ne wallahi bu ko nit di kafee sax waratoo ko café daa am yoo xam ne dafa ëpp ci génn nit di ko wax diw moo ñuy moom bu ñuy dund moo ñuy moom bu ñuy dee moo ñuy moom même bu fekkonte ni kat nga ci jublu sax dangay ngay nekk yéefar laajal saxaaba yi bañ doon saboote euh, yi naafeq yi bañ doon saboote saxaaba yi ah naan seen biir yu rëy yi ah jàng alquran da ngeen fi nekk yéen mënu leen dara ah aaya wàcc sunu borom ne qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ah léegi yéen yàlla ak ub yonenteem ak aaya yi moom ngeen di yëj laa taatabiru bu kenn joxe ngant naan lii laa ci jublu woon faqad kafartum weddi ngeen yéen ñëpp yàlla ay yéefar ngeen ñun ñun bañ doon kat sunu borom ne wala in sa'altahum la yaqul inna kunna innama kunna naxudu wa nal'ab moo ne bu leen laajee ñun dañ naan yàlla xam ne ne jubluwuñ ci woon dañ doon doon kaf suñu borom mu ni même seen kaf gi teyoo génn ngeen ci lislaam moo tax ma ne am na yoo xam ne kenn du ko kaf am na yoo xam ne melokaani suñu borom la yooy nañ ko bàyyeeg moom booy kaf da ngay kaf lu tolloog doomu aadama di ca kafee kon rabbi naas moo moom nit ñëpp bokk kenn maliki naas mooy buurab ñëpp moom nguuram ba mu tàmbalee ba léegi ba mu ba mu nekkee ba léegi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te lu jeex moom subhanahu wa moo tax ba ca àllaaxira ji mooy fii maqaadi sidqin inda malik nguur ga day continuer sax da ngay dugg àjjana nga lekk buur mu lekk buur supérieur moom sunu borom subhanahu wa taala ndax nguur ga moom gis nga xoolal rabbu naas mooy koo xam ni moo bind lépp loo xam ni nit ki daf koy dund su boobaa kon ki def loolu vraiment mérite mu nekk malikin naas loolu war naa mën a nekk buur su ko bu nekkee buur nag loolaay tax nga war koo def ilaahi naas mooy def ko yàlla ndax koo xam ne moo la sàkk defal la bien yi ngay soxla yépp mu nekk rabbi naas ah bi ko defee ba noppi daal di nekk buur boo xam ni nguuram amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon war nga koo def buuru dëgg muy maliki naas te su booba amee moom waroo xaar nga xaar ñu lay wax def ko ilaahi naas mooy yàlla bi kon moom rek la war a jaamu muy sunu borom subhanahu wa taala boo nga xam ne mi ngi jógee mi ngi xotteekoo ci rabba yarubbu tarbiyatan nga xam ne baata tarbiya muy yar ci la bàyyi ko éducation dañuy bind ci école éducation muy tarbiya ci la bàyyi ko parce que ar rabb mooy koo xam ne dalaa bind ba noppi di la dundal di la defal ay don ngay màgg benn par benn comme di garab gi ngay roose muy màgg ci sa kanam ba nga xëy nekk li nga nekk kooku mooy rabb mooy ki nga xam ne moo la yar di la teete ba nga mel ni nga mel borom bi subhanahu wa taala mooy ku am kàttan mooy ki bind mooy ki sos lépp mooy ki nga xam ne mooy melal doomu aadama yusawirukum fil arhami kayfa yasha allahu akbar xoolal melokaan wi nga mel xalaqaka fa sawaaka fa adalaka moo la bind yamale la tolale say cër fi ay suratin ma shaa rakkabak melokaan woo xam ne ku ko xool rek daal di apprécier sant suñu borom ma shaa rakkabak man dafa mel ni daal yàlla da laa bind yow noo xam ne bi nga génne da nga ne yàlla nii nga ma def de noonu laa bëggoon a doon sax ndax moo gën a rafet neneen nu mu mën a doon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim te loolu bi nga ko defee ci sa diiru yaay mooy kii dund koo xam ne dundam bi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem mooy al alqayyum alqaayim bi nafsi koo xam ne léppam moo koy defal boppam soxlaalul kenn lenn loo defal ci sa kaw lay këppoon waaye du ko jëriñ mooy ki dégg mooy ki xam mooy kiy gis mooy ki nga xam mooy xéewalee mooy ku tame ki ba àddina sosoo ca bàyyi aadama ba tey ñaata mil ci milliards yi doomu aadama ñoo fi jaar yoo xam ne kenn ku ci nekk am ngay milliards te la nga am ci ay milliards wàññiwul sa milliards yi morom te ba tey mi ngi joxe te ba déwén jéeg ba àddina tukki day continuer joxe te lool du jeexal dara ci nguuram subhanahu wa taala moo tax mu ne yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi antumul fuqaraau ila allah yéen da ngeen a ñàkk yàlla ngeen soxlaal kon ñaan leen lor bu tàbbee sa kaw moo ko fi njariñ bu ñëwee moo ko féndi moo fi njëkk moo fi mujj ku jub moo la gindi ku sànq moo la bàyyi seetaan la ak sa bopp nga yàqule loola yal na yàlla musal ñu ci yal na yàlla boole ci ñu muy gindi amal malik muy buur nag li ñuy waxtaanee fa huwa al amiru naahi mooy digle mooy tere xam ngeen ni buur goo xam ni ah lim bu toll ni li lay déggal ci àddina loolu moo am benn buur boo xam mel ga noonu moom te it bépp buur bu ma sa falu nit ñi di la déggal keroog boo follee ko ci xam ne nit ñi déggaluñ leen woon dañ laa ragaloon ndax yàpp bi nga yore woon borom bi subhanahu wa la nga xam ne mooy doxal mbiru jaam yi yépp yuqallibu llahu layla wa nahaar mooy duppar ñi guddi gi bëccëg nguur buur bu fi nekk nag day xaar yàlla duppar ñi ko guddi gi indil ko bëccëg bi même bu santaane yàlla lay xaar pour suba mu indil ko bëccëg bi noonu lay demee de buur bu santaane tey ni suba nañ exécuté nangam da ngay xaar buur bu mag bi di ko exécuté jant bi mu fenk buur bu bi nañ xaar ba guddi da ngay xaar buur bu mag mu fenkal mu solal jant bi guddi doog a ñëw moo tax moom moom buur boo mu ne waaw kon man ngeen di xaar ma exécuté su ngeen toogoon ba mu yàgg rek ma ne guddi taxawal foofu rek bul demati fu ngeen jëlee ci ku leen di indil guddi allahu akbar bu ngeen toogoon ba mu yàgg bëccëg ni kàkk rek dematul fu ngeen toogee ku leen indil ku leen di indil bëccëg kenn rek moo ko mën a indi mooy subhanahu wa taala yàlla yàlla subhanahu wa taala suturaal ñu te yërëm mooy kiy joxe nguur mooy ki koy nangu loolu moom defe naa suñu politi politiciens yi adduna yi sax defe naa jamono ji ñu passé jamono ko la dégg ngeen ko ñoo xam ni yow musoo yaakaar ci ñoom sax ñuy wax di tudd yàlla ak nangam dañuy reconnaître ni moom eh bien nguur moom yàlla ko dogal ba ba ci ba si Côte d'Ivoire ci débat boo xamee dañ koy def télé publiquement nit ñi di ko seetaan yow koo xam ni xamut l'islam jàngut l'islam jëfewu ko mu mën a reconnaître ni nguur daal yàlla moo koy joxe ku ko jox yaa moom ku ko joxul amoo ko si ngay xam ne ndekete doomu aadama li yàlla moo mooy li am mooy saa bu jàqee rek parce que sam set waaye su jàqee gi dañee rek mu commencé génnewaat ay caay caay ak tànki bukki borom bi mooy ki nga xam mooy ku tedd mooy mbër mi mooy ku màgg ki nga xam moo mën ñëpp mënal ñëpp lépp mooy ki nga xamante ni mooy àtte mooy ku maandu ki mooy ki nga xam mooy yëkkati mooy wàcce mooy ku màgg ki mooy àtte mooy ku tedd ki mooy yilif ñëpp mooy buur buur yi moom subhanahu wa taala te mooy dajale nit ñi keroog ba nga xamante ni bis ba muy woote moom buur buuraat yëpp dañuy ñëw wuy si ko moom sunu borom subhanahu wa taala am al ilaahu nag muy yàlla ji ah wax dëgg yàlla bu ñett yi jàllee kooka moom même bu dul woon maay yàlla nañ ma jaamu sax borom xel yi danañ nangu ni kii rek moo war a nekk yàlla subhanahu wa taala su ko defee moom kat dafay dajale mboolem xeeti melokaan yi mat yi nga xam ni képp ku nangu ni kii mooy sa borom ah yow koo xam ni ñëpp fi lañ ko fekk ñëpp fi lañ koy bàyyi nga ne lum man ñu ne la tëlewut dara nga ne lum am ñu ne la ñàkkut dara mën na maa xitali ñu ne ak foo ko mën a wooyee am man yu jibul mu parra ida daa foo ko mën a wooyee ak foo mën a nekk nag fii dulumaatil barri wal bahr boo nekkee ca lëndëmu jéeri ji boo ma wooyee ma wuy la boo nekkee ca lëndëmu géej gi soo ma wooyee ma wuy la buur boobu kañ la falu ñu ne amul fu mu tàmbalee kañ lay folleeku ñu ne amul fu mu yem moom moo gën ko bokk nguur gi ñu ne moom kese ana anamu moom kenn da koo mënta sax jàpp na ni yii melokaan ku ko jox na wax dëgg yàlla nga nag nangu ko def yàlla saa boo koo mu xitili la saa bo soo xitilikoo xitiliku ñëwul rek daa fekk daa am yu seen numéro yi addina yi yëpp numéro bës te mu manqué rek la nga yóbbu doo ko jox waaye gis nga saaboo boo nangoo yii foo xittalikoo sa borom ak fu mu mën a doon xoolal Yunus alayhi salaam bul ni ma yonent la ndax yàlla subhanahu wa taala am na yoo xam da koo defal yonent defal ko ñu dul yonent xoolal jën wan la nga nekk ci biiru géej ci lëndëmu géej lëndëmu guddi lëndëmu biiru jën ah Yunus mu nangu ni fii mu nekk moom du dañ di nekk jaan ngir sunu borom ah muy wax laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin tudd naa sax sell yow rek yow mi nga xam ne yow fott yaay buur suñ ne ñii nag njaaxum laa def inni kuntu min adal dama def njaaxum moo tax ma tàbbi fii nangu na reconnaître naa def naa njaaxum suñu borom ni fa lawla annahu kaana min al musabbihin gis nga waxam yu sell yooyu su ko waxul woon la labita fi batnihi ila yawmi yubaasu wa man asdaqu min allahi qiila kan moo gën a dëgg yàlla ay kaan bu waxul woon loolu fa lay ne ci biiru jëñu ba yawmal qiyaama jëñu di ko gëpp te du génn lan moo ko xëccali ñaan boobu moo tax nit ki war na koy bari di ko def laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin yonent muy doo nekk ci tiis nga ñaan ko lu mat ñetti yoon ci bis lu dul suñu borom dana la wallu wa nag wallu nga bàyyil xel ni léeg-léeg ñu bari ci ñun sax dañu am problème da ngay ñaan ñaan bi du nangu fekk ci yow ndax garab bi buñ la ko joxee ñu ne naanal benn doom nga naan genn wàll du am njariñ moo tax ibn al qayim ni xaddu silaaxi bi baaribihi ñaw kat jaasi gi mi ngi compte ca ka koy dóor kumu di nga yor jaasi bi ñaw nga xàcc dóor banqaas bi du wadd parce que sa dóor bee faible benn waaye yor jaasi joo xam ni kenn daasu ko mu xàcc dóor mu dagg parce que dóor bee fort kon dëkk nit ki kenn balaa ñu mu concentré woo gëm li muy wax udu allah wa antum muqinuna bil ijaba yaa ngi ñaan am confiance totale ni ki ngay ñaan ku man la ku am la li nga koy ñaan te da nga koy ñaan léegi mu may la ko tout de suite amul ku muy yabal loolu nit ki su ko gëmee buy ñaan borom bi subhanahu wa taala di ko nangul moo tax nit ñi gën a nangoon te ñaan dëgg la mi ngi aju ci gën a nekkal yàlla gën a góorgóorlu waaye gën a gëm jiit nag jeex jeexintal na ci nit mën naa simple lool ba ñëpp xeeb ko te buy ñaan muy nangu parce que confiance bi mu am ci boromam subhanahu wa taala moo ko waral kon kooku bu xitali ko dañ koy xitali bu musloo dañ rawatina ci seytaane li nga xam ne mooy ar rajim ku bon ci yii nag mbokk yi buñ ko xamee la waxtam wax man lam yufithu tasaarifu tajribatan fi ma yuxaawilu falyara maa alhamali lii dox ci àddina nga di ko gis ci ay xeeti xew-xew bu la joxul benn expérience ci li ngay dund bis bu ñu yeewee gétt xar mi ni kaay leen ñu sàmmi yow ku teekul dugg ci biir xar yi ñu sàmmi la ndax doo nit natt leen mbokk yi diggante deux mille ak tey ci àddina bi yëpp diggante 2000 ak tey natt leen ñaata buur ci yi àddina yi moo xam président lañ leen tuddee moo xam lu ñu mën a tuddee yoo xam ne dañ fee daanu lan moo tax may 2000 ak tey bi ma defee seetlu nag dama gis ne diggante 2000 ak tey li fi suñu borom daaneel dafa bari ba ma loolu nit ñi seetlu dañ ko war a def diggante 2000 ak tey puissance yi fi daanu dafa bari moo xam ci réewu Europe yi la moo xam ci réewu Afrique yi la ay ponkal yoo xam ne àggoon nañ ci ngamajeeg ñàkk yar foo xam ni yàlla rek moo mën a nekk seen borom di leen mu muñal waaye ci diggante bii ci leen daan nga ñëw ba fi nga nekk nga xool barki dem mboo njaay la fi nguur nekkoon doo xam ne même boo jàkkaarloo ñoom doo ñemee sëqat da ngay woote ci rajo nga wax benn baat bu subaa ñu tëj la amoo benn liberté koo xam ne da nga bëgg a def dara mun la doo ko fi defee subhaana rabbil ala ndeysaan booy dox dañ lay xàllal ak loo mën a doon même boo nekkee wàllu yu yàlla yor oto ci tali bi bu dikkee da ngay puus fële mu jàll subhaanallahi alazim yàlla moo mën a joxe waaye moo mën a foqar nit koo xam ni jabaram sax buy dem marché ay motard dañ koy taat daal xam ni xamul suñ boutique yi nu mu mel ndax li fiy jaay lépp bëggu ci dara koo am ni keroog ba mu la gëj a ceeb bi ñuy lekk fii ci dëkk bi lu mu sax koo xam ne xotti yére xeet na ci Sénégal gépp war ngal kap faw mu génn bitim réew koo xam ne jëndeewul ay dàll fii ci réew mi lu dul avant muy fal allahu akbar kooku bu xëyaatee benn bis diggante bu gàtt boo xam ni ñun ñii ñëpp a ko fekkee wallahi ci suba damaa déglu rajo sama yaram dana ndaw nduur goo xam ne jeex na ñuy interroger ñu ci nekkoon kii naan damay dellu université jàngale ji kii naan doon wallahi la azim sama yaram dana ndaw xool koo xam ne mbir mi wàcc ba nga daanu ba amul loo xalaat lu doon université gi nga ne man mii sax bëgguma faa jàngale loolu la muy wane mooy borom nguur na ko xam ni la bërki démboo njaay nga gis benn palaas buñ ne place bii de ku fi taxaw ñu def la nangam te ñëpp déggal la ci nga am fa doole diggante xas ak nga ñàkkaat nguur ba yow ni foofa ngay dem taxaw yi jëfa yuqallibu llahu layla wa nahaar naka laa sunu borom mooy jukkal ñu mbir koo xam ni yow ah, yaa yoroon nu mu turati bi muy doole nga xam ni yow booy wax léegi dem leen toroxalal ma diw ñu toroxalal ko yow nga dem ba ñu lay woo subhanallah sàndarma ya nga doon yilif yow di leen digal ñuy def ñoom la ñooy maskawaat seen kanam pour yow di la di la di la di la war nañ te jàng jàng bokk ci mooy gis ngeen fan yii ña yoroon nguur ni mu ci àddina rek la ñu ngi leen di audité ngir ay milliards ak i millions yoo xam ne fu mu dugg billahi aleykum da ngeen a yaakaar loolu suñu borom du ko def lu ko raw lay def kenn ku ci nekk suñu borom dana la audité te gis nga ndombay tànk dafa mën a jay doomu aadama fan yii passé dama am benn barab bu may dem di fa yëngatu ma am ku ma tàggu ndeke ka ma war a tàggu du kooka laa war a tàggu ka ma war a tàggu fekk ma ba yebal ñaari takk der ñu fekk ma fa man mi ma toog ñu ni ma ku la jox fii ma ni toroxal ma ci digg nit ñi toroxal goo xam ne maa yàlla rek ko xam may expliqué nanguwuñ maa déglu ma jël samay bagage tuus xajal ndax noonu la loolu mooy lislaam bi ma ko xajalee maa ngi koy xajal de ñu ngi topp di ma arsala rek maa ngi koy expliqué dégluwu ma topp ko ba muy liggéey nangu maa déglu ma bàyyi ko dem yàlla mi nga xam ne mooy maalikul mulk mooy buur bi nekkee moom ka ko seete fii la dëkk ba fii fii laa taxaw ba yàgg rek ma seen waa ji oto ma waxaat waxtaan ak moom mu ne ma demal jëlal sa daabal nga dem teg foofu bi ma ko tegee ca suba te mu ñëw fekk ma teg fa bi ma ñëwee mu xam ni moom jaar naa ci ku ko mag moom ko ko yëlif moom bi ma ñëwee fekk mu taxaw pour wan ko ni ko jekku naa la nanguma koo xool sax ma xool fële man ñetti fan seet naa ko li muy wax démb ci ngoon na ci mujj nangootu la jaar sax fi ma nekk buy teeg buy jaar dama koy seet pour am keer sax xoolul loolu la nga doon jaay ana mu jeex na tey ku li ma gën mooy ki ma may li ma may du jullit yàlla seede na bi ma ko toppee laaj ñu ne ma kii du jullit xoolal loolu jullit baa ngi toroxal mbokkum jullitam ngir ni ak ak tëni laa sol tëni mooy lan tëni booy nelaw da nga koy summi tëni mooy boo dee kenn du la ko yóbbu perkaal sax ak gën a bëlëri ndax moom mooy dem àllaaxira xoolal yooyu ni mën a jëriñ doomu aadama tey ñu futti la tey di la ila axirihi comme yooyu doomu aadama bu ko yàlla dénkee lenn ci ay ndombay tànk na xam ne lii suñu borom da koo dénk rek ndeysaan da ña ca topp ay kilifa yoo xam ni foo jëm dañ lay dar ah tey boo ñëwee ci bunt bi da taxaw bëgg a dugg diw la ñuy àtt ñun la doo dugg ah te yow yaa daan wax doo dugg tey ñun la yow doo dugg gis nga ko de oto bu baax saleer bu baax jox la essence jox la courant jox la ndox jox la lépp nga xëy xëy rek ndeysaan benn bi suñu borom foqar ñu lépp jox ko ñeneen xam ngeen ni balaa suñu xeeti élection yii di xew kenn foogewul woon nit ñi lay demee natt yi borom xel yi nattoon yépp njuuy na leen loolu mooy suñu borom mooy borom njuuy gi mooy fan ko foogewul xoolal koo xam ne yow ñu la fi jiitu ñu la ëpp expérience gën laa nekk ay homme d'état ñoo xam ne ñoom la tiktak yi di joxe woon ñoom ñoo koy jël sunu borom mu ni déedéet na ba dogaloon ca azal moom moo koy jël mu jeex kooka it nag gis nga bu dof dof loo borom bi na mu def ay moromam noonu la def moo tax suñu borom li muy def ci loolu am njàng la war a doon doomu aadama yi lépp a lépp lu dul ak ngëm yàlla ak mbaax loolu sol ah benn waaye jamono yi passé mi ngi may nettali koo xam ni ab avocat la ci misaal nga xam ni xam naa benn waay moo amoon soxna soxnaam problème ñu dem tribunal ndaw si def ay débat de ba avocat bi jox ko dëgg ngir sabab mi ngi koy labat ci suuf pour après mu takk ko ba yëf ya passé sëy ba tas avocat bi dem takk ko lii ku ko fekkee moom koy nettali mu ni ma avocat bi moo dee bi mu deewee ñu tëral ko waa ji daal kenn xamul fu mu génne ca làng ga la génne ñëw taxaw daal di joxe néew bi ah da ngaa foogoon ni du ma la jekk bisub tey nag jekku naa la tey nag moom jébbal naa la ka nga xamante nii moom moo la bind bind ma yaata tas sama sëy ngir jël ko bàyyi naa la ak yàlla rocceeku nekk ci mbooloo mi am na ñu xam histoire bi nu mu mu ni am nañu bari dañoo rocceeku nanguwuñu sax jullee nii xoolal xoolal yi xeeti toroxtaange ak musiba moo tax xeeti ndamoo tànk yeeg diw mooy nangam ak moom mooy président ak mooy ministre ak nangam yu xeet yu soof la gis nga cër dëgg dëgg mooy bi nit ki am ca boromam subhanahu wa taala cër boobu moom boo ko amee doo ko ñàkk mukk fi yegg yaa ngi topp suñu borom di mooy moytu ay mooy doo ko ñàkk mukk yàlla suñu borom defal na ko meññeent moomu nag biñ gëmee ne suñu borom kat moom mooy buur suñu jàqee ci moom la ñuy dem bu ñu tiitee nan ko ñaan ñàkkul dara wallahi ñàkkul dara man naa yabal loo xam ne xéewal la boo xam ne benn doomu adama du ko indi mu ñëw ci say loxo te loolu ba tey mi ngi am laa wax ba tey ba tey mi ngi am bu leen jàpp ni mënta am de maanaam borom bi subhanahu wa taala dana indi xeeti xéewal yoo xam du jaar ci loxo doomu aadama da ngay jékki-jékki rek mu ñëw ci say loxo doo xam fu mu na ndax suñu borom bi am na yeneen jaam yu gën a bari doomu aadama yii kooku benn la mi ngi aju ci confiance ñaanee saa boo jàppee ñaanal sunu borom saa boo tiitee ñaanal sunu borom këyitu kalaame moom jox ko sunu borom subhanahu wa taala la waa ji ne la yóbbu ci yoon mu ne ko mën a boole la ak yàlla subhanahu wa taala kon doomu aadama yépp dañ koo soxlaal amul ku ko man a ñàkk lu tolloo tarfatal ayin loolu nag buñ ko yëgee dañuy yëg ni kon mooy mooy buur mooy gorom nguur mooy joxe nguur mooy foqar ñi nguur kum neex da nga fal ku neexul moom suñu borom da ngay follee saa la suñu borom joxee nguur nag bàyyil xel ni am na fu mu tàmbalee loolu mooy nàmpal ga neex na lool waaye di sa teral ga de boo amul sens mën ngaa réccu beneen bi ci topp nag mooy kenn ku ci nekk ci ndombay tànk yii nu la dénk ne yaa mel ni ku bokk ay nañ ci nemmaaral nga nemmaaral ndax audité gi ñu lay audité te loolu ay nit ñoo la koy def simple comme yow la muy wane mooy kenn ku ne ñun mbokk yi war naa gën a dolliwaat saytu bi muraaxaba digganteem ak na nga taxaw ci laysa baynahu wa baynahu tarjumaan sa digganteeg sa borom amul fuñ naan kaay traduire li yàllay wax li suñ borom di wax da nga koy xam li muy wax mu di ko dégg nga xool sa ndeyjoor doo gis lu dul say jëf nga xool sa càmmoñ doo gis lu say jëf mu déplacé wu fekk la fa nga téen ca kanam jëf yi nekkat ëmb déplacé wu fekk la fa nga geesu ka daalik mu ne booy sëgg rek sa ron xarante sa sawara ngay séen kenn rek moo fi des muy suñu borom su boobaa dana laaj ani sagiri wal kabiri lu rëy laag lu ndaw laag sa dërëm dërëm yaag sa ñaar dërëm ñaar dërëm yaag keroog bañ la falee bi sàngam ak lépp tey xoolal ñii di ëpp am na ñu yëgul na koo ma samay dix mille te gars na koo ma sa yàq sa cent mille franc kenn yëgu ko waaye sunu borom moom lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw lépp xam na ko wa wajadu ma amilu xaadiran sunu borom moom lépp lu ngeen doon jëf ndeysaan jal naa ko jëleen xaar wala yazlimu a ahadan sunu borom yàlla mu tooñ kenn yàlla yàlla suturaal ñu fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi alay yàlla yàlla musal ñu ci lépp loo xam daf ñuy jural toroxtaange fii ci àddina ci àllaaxira yàlla yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu diine yal na yàlla delloo si waat ñu fa yent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam te it mu rey ci rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه ان innaka anta alwahhab allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين بقي أند sant sunu borom subhanahu taala mi nga xam ne ku màgg la te kawe te yeyoo lépp xeeti cant ndax li mu defal ci ay xéewal day kenn ku weetoon rek ngay lim la la sunu borom defal ci ay xéewal doo ko daj amul kenn ci kaw suuf ak li wër àddina bi lépp koo xam ni yërëm na la ba toog jot sunu defal na la ci ay xéewal lu jege sax la sunu borom defal kooka day waroon ngaa góorgóorlu moos ci mboolem lu mu la sant nga taxaw ca lu mu la tere nga ba ko ndax lim la defal kenn defalu la ko mboolem ñi lay yërëm moom moo ca jiitu ndax ba lay yërëm booba ñi lay yërëm ñëpp kenn amagu ci woon loolu xeetu pas-pas la yoo xam ni ku ko fas day da ngay lu ci delloo njukkal sa boroom te xam ni moom rek mooy ku màgg ki lenn ci cër yi mu moom dee su ko sedd di ko jox beneen doomu aadama bokk na ci tur yu sell yu kawe yi nga xam ni sunu borom moo ko jagoo moo ko moom mooy tur woowu ñu tuddee al malik wala al wala al malik wala malikul mulk yooyu yëpp daal boo ko doon tekk tekkiwut lu dul rek mooy buur moom lépp moom ñëpp sañ lépp ëppale ñëpp sañ ci ñëpp lu ko soob tey lu nekk moom moo moom pàcc pàcc nguur yi moom moo ko pàccal ñam ko jox te lam leen joxi daam fu mu tàmbalee bis day ñëw mu nangu ko ca ñoom te moom besam amul fu mu tàmbalee te it nguuram du jeex ba faaw jàpp naa ni kum melal wii melokaan lépp lu nu wax ci yow rek ci xeeti mbaax mbaax ak man ma nekk sañ-sañ borom xel yépp war nañ koo gëm ndax koo xam ne nguuram gi ni mu yaatoo amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ku am nguur moo la ko jox ba mu la koy jox am na fu mu tàmbalee am na ab bu jeexee mu nanguwaat ko ak fu buur mën a buuree ci àddina bi moo xam ci lislaam ngay jiiteeg lu dul lislaam jàpp naa ne kooke de melokaan wii rek buñ ko ko joxaloon bañ koo tuddal weneen borom xel yëpp danañ xam ni kii de ku màgg la kii de ku foor la kii de dama ko war a teg foo xam du ma fa teg kenn bal sax moom laa war a jiital keneen kuy ñëw doog a ñëw ca wàccuwaayu gannaaw ba sunu borom mi ngi fa taala allahu yàlla day màgg na te kawe almalikul xaq mooy buur ab bi moom suñu borom maanaam buur boo xam ne ab nguuram moom dafa valable tege ci dëgg ci amul fu mu tàmbalee amul fu muy yem ci kenn du ko audité kenn du ni ko sa nguur gi soob nanu na fi jóge ko kenn la mooy sunu borom la ilaha illa hu amut lenn nag loo xam ni warees na ko jaamu jaamu gi di indi njëriñ te mbaa ñàkk gaa jaamu ji indi lor te bon lu dul sun borom rabbul arshil azim mooy borom aras rabbul arshil karim mooy borom aras ju màgg ju tedd ja nga xam ne mi ngi tiim jaam yi yépp sunu borom mu ni ca jeexintalu suratul qamar ca fa ñuy daje fa sunu borom ca pee xéewal ya yàlla sunu borom defal lu ko fi maqaadi sadiqin ca toogu ya nga xam ne mooy toogu yu dëgg ya beneen toogu boo gis nag du toogu dëgg ndax toogu boo gis ab nit moo toogee ko moo moo toogoon ba jug ab nit a ni ñokket dem nga doog a ñëw toog parce que buñ mën a pal nit nag na yëg ni bu dee faslu bu yees la musuñ faa pal kenn ci la war a folli mi ngi topp sa gannaaw bu dul loolu it am na ku fa toogoon kon bu fa jugul woon doo fa ñëw kon yëgal da nga fa war a jug pour keneen ñëw fa kon nag fi maqaadi sadiqin ca toogu dëgg ya te xam ni place buñ la fa jox moom vraiment yaa ko moom àjjana fa la toogu dëgg ya nga xam ne fu ni la fii moom yaa fiy buur foofa yaa fay buur di bu mi ba faaw kenn du la ma fas jëlee foofu inda maliki muqtadir la waral toogu ya nekk tooguy dëgg mooy daa nekk ca kër buur boo xam ne bu ami sañ-sañ la te man te lum la jox dootu ko nangu te keneen du ñëw di ko nangu sunu borom mu ni qul waxal allahuma yow sunu borom malika al mulk yow de dëgg dëgg nag xool nañ ba seetlu waaye gis na ni yow yaa moo taxi tuutil mulka yaay jox nguur man tashaa ku la soob wa tanziu al mulka yaay foqar ñi nguur liman tashaawu ko ci ku ko soob subhaana rabbina al aala mbokk yi nanu ànd ñu def ak taxaw seetlu ci aaya ji ak waxin wu ñor wi suñu borom waxee ci ngay xam ne njëkkate nguur du dara xoolal yàlla bi muy joxe nguur dañu man maa joxe nguur waaw bi mu koy jël lu tax waxut maa ko jëlaat waaye da dañu foqar ñi njëkkate nguur ku ko suñu borom jox rek boo koy ñàkk dañ koy foqar ñi ci say loxo maanaam baat boobu muy tanzi al mulka da nga ko ciy déggee maanaam borom subhanahu wa taala mu ngi tuktil mulk mooy joxe nguur ku joxe kay da ngay jëlaat ku ne xam na ni joxe dudd ba mooy jël waaye ba suñu borom joxe ba nangu jotee néewut jël la tax néewut jël mooy nguur guy jeex dafa soof su bokk ni ci gën a soof mooy nguur guy jeex bañ laajee yonent bi mbiram nguur dañ ah nampal ga neex na de waaye tey bisab teral ba nampal ga neex na waaye bisab teral ga xale buy namp day ma nga la mu bëgg waaye boo ko teralee indi coow kon nguur moom tàmbali ba ak digg ba neex na waaye peral ga ca la coow la nekk moo tax borom bu la ko joxee nga nekk ci nguur ak nguur ak lu mu mën a nag day neex waaye saabu bu xëyee di ko nangu rek nag moom nangu gu metti nag tey kéemaan gi mooy bépp nguur goo xam ni dafa tàmbalee ci pokar ñi ci lii may wax ni kenn ku ne ci ñun na ko seetlu dem leen ci réew yi dem ci réewu Afrique yi moo xam Côte d'Ivoire la moo xam Mali la moo xam ci réew yi nga xam ni yëpp ka jot nguur boo seetlu dafa coup d'état woon boo seetloo jotin wu soof nga ko jëlee woon nanguñ wu soof woo wala lañ koy jëlaatee ci yow lii ku def ab seetlu rek ko gis muy benn ñaareel mooy nguur yi xam ci lislaam boo demee ci ak dawla al abbasi ak dawla al amawi ak état yi fi jot goo xam ne nu soofee nii la ko borom jotee woon donte ci lislaam lay àtte woo nu soofee nee la koy ñàkkaatee yooyu nag doomu aadama yi waroon nañ cee xamee ni kon ndeke suñu borom yanziul mulk mooy foqar ñi nguur da ngay xëy benn bis rek ndeysaan ki la war a folli fekk mi ngi sarawee tànk comme na Moussa defoon Firawn kon tanziul mulk yaay foqar ñi kon baata foqar ñi dafa métti lool ah mimman tashaa ca ku la soob wa tuizzu yaay teddal man tashaa ku la soob ndax da ngay jékki-jékki gis benn waay boo xam samba booy la xëy xëy rek daanaka nguur daal di koy yëkkati ba ku koy xool da ngay téen waaye wa tuzillu man tashaa booy fekk waa ju yëkkati woon ba ku koy xool da ngay téen bu koy detteel ba muy jaaxaan day bett ñëpp ndax jàpp na ni koo xamante ni foo mas a joxoñ ñu tagg bu ñu xëyee ba dina pam tipante vraiment yëf yi soppeeku na kon moo lay wan ni borom bi subhanahu wa mooy toroxal ku ko soob mooy yëkkati ku ko soob yalla na yàlla yëkkati ñu ca la nga xamante ni mooy la muy gërëm mu ni bi yadikal xayr ci sa loxol la yiw nekk yow sunu borom ndax yow kat innaka ala kulli shay'in qadir yow moom lu nekk rek yaa am kàttan yaay ka ko man kon ñu ànd yëg nguur melokaanu nguur ci melokaani sunu borom yi la bokk ndax melokaanu rëy la te rëy melokaanu sunu borom la melokaanu foor la te melokaanu foor ci melokaanu sunu borom yi la bokk melokaanu yaa yilif lépp te kenn rek mën a yilif lépp muy sunu borom wax dëgg yàlla nguur googa moo waral mu moom la ca kaw moom li ci suuf ñëpp nekk ay jaamam saa boo déggee ku faatu rek nga ni nañ ko jébbal boromam summa ruddu ila allahi mawlaahum ndax muy buurub dëgg ba kon jaam ñëpp dañ koo soxlaal as-samad mooy koo xam ni ñëpp a ko soxlaal ku nangu soxlaal nga ko ku nanguwul soxlaal nga booy jullit soxlaal nga sunu borom booy yéefar soxlaal nga nag yeyut am ci waajoo xam ni yoroo dund yoroo dee yoroo dégg yoroo gis ah, mënoo santaane ñëpp maase def faw am ñu bañ mënoo tere ñëpp santaane bàyyi am audace nangami milliards yi nit ci àddina bi nga wàcc téere rek yónni bi yonente jox leen ñu leen jëf leen même bu ñu làqoon ci seen biir yi néeg yi sañu ñoo bañ mbokk loolu lu ko waral lan mooy ndayu nga tëju sa biir néeg kenn gisu la mooy yàlla gi ne fi mu wóor la ni tey jii mën nga koo def ndax jekk nga ko nga takk sa sintiig ba mu dëgër lànk bañ koo def lu la ko teree def parce que am na looy bàyyi xel loo xam ne gisoo ko yuminuna bil gayb ah yaxaafuuna rabbahum min fawqihim ñoom dañuy ragal seen borom mi nga xam ne moo leen tiim moo tax wa yafaaluuna maa yumaruun dañuy def leen suñu borom digal kooku mooy buur mooy ko xam da ngay wét ba kenn gisu la waaye ba léegi rek tekkee kooku sañoo tekkee ko ah mbir mi da nga koy bëgg lool nga wéet ci weeru koor frigo baa ngi ci néeg bi frigo yaa ngi ci néeg bi boo lekkoon sa soxna mi la gën a jege du ko xam te sañoo lekk ki ngay bàyyi xel kooku ku foor la kooku mooy maalikul mulk jàpp na ne keneen a doon saroon kilifteef ay nit ña koy def ay looxi doona yu bari yoo xamante ni buñ la gisee la ñuy normal buñ la gisul duñ normal waaye am na ñoo xam ne nag moom buñ la gisee buñ la gisul dañuy normal parce que seen borom mooy rabbul alamin borom bi wa taala mooy joxe mooy xañe mooy maye di nangu di terale allahu akbar ku yàlla teral ku nekk tedd nga waaye gis suñu borom toroxal da nga torox wa man yuhin allahu fa maa lahu min nasrin yàlla mu ne ku ma seetlu ba toroxal la kenn dootu la tax a teddati ci kaw suuf wa man yuhini llahu ku yàlla toroxal fa maa lahu min mukrim yow moom dootoo teddati ba faaw yàlla sunu borom musalun ci toroxtaange borom bi subhanahu wa taala jaam ñi moo leen di tawal di leen saxalal gàncax di yabal ngelaw ñu ciy nooy ci xoolal yi nekk nécessité yëpp allahu akbar borom bi daf ko def gratuite ngelaw bu ko suñu borom bàyyee woon ak société yuy jaay ndox bu suñu donte am na société yuy jaay bu suñu borom bàyyee teen yeeg yépp mu fat mu nekk mbirum ndox ñii ñi di ko jënd jënd rek ndox boo ko ñàkkee dee nooyi boo ko ñàkkee dee yi nekk nécessité dëgg dëgg dëgg borom bi daf ko yombal subhanahu wa taala mu nekk gratuit ci nit ñi suñu borom subhanahu wa kon lépp loo xam ni jaan ñi soxla nañ ko daf leen koo defal vraiment koo xam ne boo soxlaa ngelaw mu indi mu nekk gratuit boo soxlaa lekk ak naan mu yombal ko boo soxlaa nokki mu yombalal la ko jàpp naa ni kii bu diglee jaamu ku ñu war a jaamu la bu nee maay buur war nañ ko koo nangul ndax buur boo xam ni bi ngay nekk buur nit ñi fekkeewuñ ko buur boo xam ne sa sa nguur nga dese ko te it lu nu bu buñ la ko ñaanee nga may leen ko jàpp na ni ko bu nee maay buur war nañ koo nangul nguuram subhanahu wa taala ànd ak nag melokaan yii ma tudd muy melokaan yu màgg képp koo xamante ni amu ko rek kooka buñ ko waxee buur it ak nguuram nga daanaka nguur gu soof la la xam ngeen ne Haruna Rashid buur la woon bu màgg benn borom xam-xam bu mag ndeysaan bu am xikma ndax buur yi dañ daan faral di jël borom xam-xam teg ko ci sa pegg mu di la xelal buur bi mar ndox benn bis daal di yónnee benn kaasu ndox bu sedd kaas bi ñëw ba mu dem ba di ko waaj a rek borom xam-xam bi jóg ni nikk kaas bi ni ko waaw sun la xañoon ndox ne la dootoo naanati ah est-ce que nga joxe sa genn wàll nguur gi ah ngir nga mën a am kaasab ndox mu ne waaw kon dinaa ko joxe mu ne waaw buñ boo bëggaatee naan ñu téyewaat ko ni la fii ak joxe woo beneen nguur genn wàllu nguur gi ci des ndax di nga joxe nguur gi pour naan kaasab ndox mu ne ko waaw mu ne ko su booxul nguur goo xam ni kaasab ndox ko ëpp valeur kon xol boobu dégg-dégg nguur goo xam ne tey bi ñu la xañee kaasam ndox ndax yaa ngi waaj dee nga joxe sa genn wàllu nguur suba sa ñu lay mayaat ndox xañaat la ko nga joxe benn genn wàll ko mu ne ko su bokkul nguur goo xam ne kaasam ndox bu sedd moo ko valeur te it nguur noonu la mel boo say nekk nag dafay neex lool bu la ko suñu borom joxee dafay neex lool da ngay joxañ ñuy dagg ngay wax ñuy def lépp formal la respecté la waaye gis nga bu ko suñu borom foqarñee da ngay daal di mujj nekkaat citoyen simple koo xam ne ndeysaan kaan lan tax na bi ams da ngay dugg ci biir tool bi defe ni tool bi du moo fi meññoon kaan lan tax na bil ams comme tool bi musta meññi fekk la waral mooy borom bi subhanahu wa taala day wane ak màggaayam mooy képp ku ñu jox tuuti rek bis day ñëw borom bi subhanahu di koy nanguwaat jaam ñëpp suñ borom la ñuy wéeru ànd ak nit ñi nag ñetti xaaj lañ ci saxal góor ak suñu borom yonent yi ak ñi nga xam ñoo ko topp ak ñi gëm yàlla ñoom alhamdulillah dañoo saxal dogal ñeel ko suñu borom ak xerañte ak mbooleem melokaan yu màgg lépp luy sikk ak ayib ak manqué manqué ñoom dañ koy soril suñu borom lekk lu nuróole nit ñu ne suñu borom bokku ca ñoom nag nuróole ko keneen ndax beneen kuréel bu dul ahlu sunnati wal am na fu nuy diirandee mbagg ay nit ak sunu borom te loola ci yàqu pas-pas la bokk borom bi subhaanahu wa taala kat moom def na li nga xamante ni moom boppam mu nekk buur nguur goo xam ne amul fu mu tàmbalee waaye peeg jaam ñëpp lu waay të të të bis day ñëw rek day saan euh, moom laa doon joxe misaal ma ne néew ni ñu koy defal yàlla fonkal mu ko defal moromam sax boo doon xeex ak moom nga ko ah yow sa moo xam ne na sax moo ëpp doole ñu jàppal la ko takkal la tànk yi ba mu dëgër takkal la loxo yi ba mu dëgër sàngal la ko perkaal teg ko ci sa kanam kooku bu la ëppoon doole sax léegi yaa koy ma waaw léegi xoolal ko ñu defal ko yàlla subhanahu wa taala moo tax ma ne ni ñuy defal yàlla néew morom mun ko defal moromam sax nga war kaa man waxuma la nga suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ni bu loolu amul woon sax moom ab ndawam rek mën na koo yebal ci yow mu faagaagal la xoolal rek baat yi nga xam ne ni mu toggalikoo noonu la baaxee tey wane màggaay suñu borom muy maliki rabbi nnaas qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas saar la wu gàtt boo xam ñu ngi koy jàng waaye xoolal toggalugu rab rappalikoo goo xam ne day wane màggaay suñu borom ah rabbi nnaas mooy ki amut kenn koo xam ni génn gi ci moomeel ah moo tax boo toogee yàgg ne diw moo ñuy moom bu ñuy dund bu ñuy dee moo ñuy moom am na yoo xam ne wallahi bu ko nit di café sax waratoo ko café daa am yoo xam ne dafa ëpp ci génn nit di ko wax diw moo ñuy moom bu ñuy dund moo ñuy moom bu ñuy dee moo ñuy moom même bu fekkonte ni kat nga ci jublu sax da ngay nekk yéefar laajal saxaaba yi bañ doon saboote euh, naafeq yi bañ doon saboote saxaaba yi ah naan seen biir yu rëy yi da ah, ngeen ci nekk yéen mënu leen dara ah aaya wàcc sunu borom ne qul abillahi wa ayaati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ah léegi yéen yàlla ak ub yonenteem ak aaya yi mu ngeen di yëj laa taatabiru bu kenn joxe ngant naan lii laa ci jublu woon faqad kafartum weddi ngeen yéen ñëpp yàlla ay yéefar ngeen ñun ñun bañ doon kat sunu borom ne wala in sa'altahum la yaqul inna kun innama kunna naxuduuna al moo ne bu leen laajee ñun dañ naan yàlla xam ne ne jubluwuñ ci woon dañ doon fo rek dañ doon kaf suñu borom mu ni même seen kaf gi tey woon génn ngeen ci lislaam moo tax ma ne am na yoo xam ne kenn du ko kaf na yoo xam ni melokaani suñu borom la yooyu nañ ko bàyyeeg moom booy kaf da ngay kaf lu tolloog doomu aadama bi ca kafee kon rabbi naas moo moom nit ñëpp bokk kenn maliki naas mooy buurab ñëpp moom nguuram ba mu tàmbalee ba léegi ba mu ba mu nekkee ba léegi amul fu mu tàmbalee amul ku mu yem te lu jeex moom subhanahu wa taala moo tax ba ca àllaaxira ji mu ne fii maqaadi sidqin inda malik nguur ga day continuer sax da ngay dugg àjjana nga nekk buur mu nekk buur supérieur la moom sunu borom subhanahu wa taala ndax nguur ga moom du jeex ilaahi naas gis nga xoolal rabbu naas mooy koo xam ni moo bind ñëpp defal leen lépp loo xam ni nit ki daf koy aajowoo ci dund su boobaa kon ki def loolu vraiment mérite na mu nekk maliku naas ndax ki def loolu war naa mën a nekk buur su ko defee bu nekkee buur nag loolaay tax nga war koo def ilaahi naas mooy def ko yàlla ndax koo xam ne moo la sàkk defal la bien yi ngay soxla yépp mu nekk rabbi naas ah bi mu ko defee ba noppi daal di nekk buur boo xam ni nguuram amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon war nga koo def buuru dëgg muy maliki naas te su boobaa amee waroo xaar nga dik waroo xaar ñu lay wax def ko ilaahi naas mooy yàlla di kon moom rek nga war a jaamu muy sunu borom subhanahu wa taala boo xoolee baatab ar rabb nga xam ne mi ngi jógee mi ngi xotteekoo ci rabba yarubbu tarbiyatan nga xam ne baatab tarbiya muy yar ci la bàyyi ko éducation dañuy bind ci école yi éducation muy tarbiya ci la bàyyi ko parce que ar rabb mooy koo xam ne da laa bind ba noppi di la dundal di la defal ay don ngay màgg benn par benn comme di garab gi ngay roose muy màgg ci sa kanam ba nga xëy nekk li nga nekk kooku mooy rabb mooy ki nga xam ne moo la yar di la teete ba nga mel ni nga mel borom bi subhanahu wa am kàttan mooy ki bind mooy ki sos lépp mooy ki nga xam ne mooy melal doomu aadama yusawirukum fil arxaami kayfa yasha allahu akbar xoolal melokaan wi nga mel xalaqaka fa sawaaka fa adalaka moo la bind yamale la tolale say cër fi ayi suratin ma shaa rakkabak melokaan woo xam ne ku ko xool rek daal di apprécier sant suñu borom ma shaa rakkabak man dafa mel ni daal yàlla da laa bind yow noo xam ne bi nga génne da nga ne yàlla nii nga ma def de noonu laa bëggoon a doon sax ndax moo gën a rafet neneen nu mu mën a doon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim te loolu bi nga ko defee ci sa diiru yaay mooy ki dund koo xam ne dundam bi amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem mooy alqayyum alqaayim bi nafsi koo xam ni léppam moo koy defal boppam soxlaalul kenn lenn loo ko defal ci sa kaw lay këppoon waaye du ko jëriñ mooy kiy dégg mooy ki xam mooy ki gis mooy ki nga xam mooy xéewale mooy ku tabe ba àddina sosoo ca bàyyi aadama ba tey ñaata mille ci milliards yi doomu aadama ñoo fi jaar yoo xam ni kenn ku ci am ngay milliards te la nga am ci ay milliards sa milliards yi morom te ba tey mi ngi joxe te ba déwén jéeg ba àddina tukki day continuer joxe te loolu du jeexal dara ci nguuram subhanahu wa taala moo tax mu ne yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi ila allah yéen da ngeen a ñàkk yàlla ngeen soxlaal kon ñaan leen lor bu tàbbee sa kaw moo ko fi njariñ bu ñëwee moo ko fi indi moo fi njëkk moo fi mujj ku jub moo la gindi ku sànq moo la bàyyi seetaan la ak sa bopp nga yàqule loola yal na yàlla musal ñu ci yal na yàlla boole ñu ci ñu muy gindi am muy buur nag bi ñuy waxtaanee fa huwa al amiru naahi mooy digle mooy tere xam ngeen ni buur goo xam ni ah lim bu toll ni li lay déggal ci àddina loolu moo amul benn buur boo xam mel nga noonu moom te it bépp buur bu ma sa falu nit ñi di la déggal keroog boo follee ko ci xam ne nit ñi déggaluñ leen woon dañ laa ragaloon ndax yàpp bi nga yore woon borom bi la nga xam ne mooy doxal mbiru jaam yi yépp yuqallibu llahu layla wa nahaar mooy duppar ñi ko jigéen bëccëg nguur buur bu fi nekk nag day xaar yàlla duppar ñi ko guddi gi indil ko bëccëg bi même bu santaane yàlla lay xaar pour suba mu indil ko bëccëg bi noonu lay demee de buur bu santaane tey ni suba nañ exécuté nangam da ngay xaar buur bu mag bi njëkk a exécuté jant bi mu fenk buur bi nañ xaar ba guddi da ngay xaar buur bu mag mu fenkal mu solal jant bi guddi doog a ñëw moo tax moom moom buur boobu mu ne waaw kon man ngeen di xaar ma exécuté su ngeen toogoon ba mu yàgg rek ma ne guddi taxawal foofu rek bul demati fu ngeen ku leen di indil guddi allahu akbar bu ngeen toogoon ba mu yàgg bëccëg ni kàkk rek dematul fu ngeen toogee ku leen indil ku leen di indil bëccëg kenn rek moo ko mën a indi mooy subhanahu wa taala yàlla yàlla subhanahu wa taala suturaal ñu te yërëm mooy kiy joxe nguur mooy ki koy nangu loolu moom defe naa suñu politi politiciens yi adduna sax defe naa jamono ji ñu passé jamono yi ko la dégg ngeen ko ñoo xam ni yow musoo yaakaar ci ñoom sax ñuy wax di tudd yàlla ak nangam dañuy reconnaître ni moom eh bien nguur moom yàlla ko dogal ba ba ci ba ci Côte d'Ivoire ci débat boo xam ne dañ koy def télé publiquement nit ñi di ko seetaan yow koo xam ni xamut l'islam jàngut l'islam jëfewu ko mu mën a reconnaître ni nguur daal yàlla moo koy joxe ku ko koy joxe yaa ko moom ku ko joxul amoo si ngay xam ne ndekete doomu aadama li yàlla waxoon mooy li am mooy saabu bu rek pas-pasam set waaye si jàqee gi dañee rek mu commencé génnewaat ay caay caay ak tànki bukki borom bi subhanahu wa taala mooy ki nga xam mooy ku tedd mooy mbër mi mooy ku màgg ki nga xam moo mën ñëpp manal ñëpp lépp mooy ki nga xamante ni mooy attete mooy ku maandu ki mooy ki nga xam mooy yëkkati mooy wàcce mooy ku màgg ki mooy atte mooy ku tedd ki moo yilif ñëpp mooy buur buur yi moom subhanahu wa taala te mooy dajale nit ñi keroog ba nga xamante ni bis ba muy woote moom buur buuraat yëpp dañuy ñëw wuy si ko moom sunu borom subhanahu wa taala amma al ilaahu nag muy yàlla ji ah wax dëgg yàlla bu ñett yi jàllee kooka moom même bu dul woon yi yàlla nañ ma jaamu sax borom xel yi danañ nangu ni kii rek moom war a nekk yàlla subhanahu wa taala su ko defee moom kat dafay dajale mboolem xeeti melokaan yi mat yi nga xam ni képp ku nangu ni kii mooy sa borom ah yow koo xam ni ñëpp fi lañ ko fek ñëpp fi lañ koy bàyyi nga ne lum mag ñu ne la tëlewut dara nga ne lum am ñu ne la ñàkkut dara mën na maa xitali ñu ne ak foo ko mën a wooyee am man yujibul mudtarra ida daa foo ko mën a wooyee ak foo mën a nekk nag fi dulumatil barri wal bahr boo nekkee ci mu jéeri ji boo ma wooyee ma wuy la boo nekkee ci lëndëmu géej gi soo ma wooyee la ah buur boobu kañ la falu ñu ne mu amul fu mu tàmbalee kañ lay folleeku ñu ne amul mu yem moom moo gën a bokk nguur gi ñu ne moom kese anamu moom kenn da koo mënta gis sax jàpp na ne yii melokaan ku ko jox nag wax dëgg yàlla nga def nangu ko def yàlla saa boo xitilikoo mu xitili la saa bo soo xitilikoo xitiliku ñëwul rek daa fekk daa am yu manqué seen numéro yi àddina yi numéro yoo bës te mu manqué rek la nga yóbbu doo ko jot waaye gis nga saaboo boo nangoo yii billahi alazim foo xittalikoo sa borom ak fu mën a doon xoolal yunus alayhi salaam bul ni ma yonent la ndax yàlla soo taala am na yoo xam ne da koo defal yonent defal ko ñu dul yonent xoolal jën wan la nga nekk ci biiru géej ci lëndëmu géej lëndëmu guddi lëndëmu biiru jën ah yunus mu nangu ni fii mu nekk moom du dañ bi nekkub jaar ngir sunu borom ah muy wax laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin tudd naa sag sell yow rek yow mi nga xam ne yow fott yaay buur su ne ñii nag njaaxum laa def inni kuntu min abal dama def njaaxum moo tax ma tàbbi fii nangu na reconnaître naan def naa njaaxum suñu borom ni fa lawla annahu kaana min al musabbihin gis nga waxam yu sell yooyu su ko waxul woon la labita fi batnihi ila yawmi yubaasu wa man asdaqu min allahi qiila kan moo gën a dëggu yàlla ay kàddu bu waxul woon loolu fa lay ne ci biiru jëni ba yawmal qiyaama jëni du ko gëpp te du génn lan moo ko xëccali ñaan boobu moo tax nit ki war na koy bari di ko def laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin yonent muy doo nekk ciw tiis nga ñaan ko lu mat ñetti yoon ci bis lu dul suñu borom dana la wallu waaye nag wallu nga bàyyil xel ni léeg-léeg ñu bari ci ñun ndeysaan dañu am problème da ngay ñaan ñaan bi du nangu fekk ci yow ndax garab bi buñ la ko joxee ñu ne naanal benn doom nga naan genn wàll du am njariñ moo tax ibn al qayim ni xaddu silaaxi bi baaribihi ñaw kat jaasi gi ñu ngi compte ca ka koy dóor kumu di nga yor jaas bi ñaw nga xàcc dóor bànqaas bi du wadd parce que sa dóor bee faible benn waaye yor jaas joo xam ne kenn jaasi ko mu xàcc dóor mu dagg parce que dóor bee fort kon dëkk nit ki kenn balaa ñu mu concentré woo gëm li muy wax udu allah wa antum muqinuna bil ijaba yaa ngi ñaan am confiance totale ni ki ngay ñaan ku man la ku am la li nga koy ñaan te da koy ñaan léegi mu may la ko tout de ku muy yabal buy ñaan borom bi subhanahu wa taala di ko nangul moo tax nit ñi gën a nangoon ci ñaan dëgg la mi ngi ci gën a nekkal yàlla gën a góorgóorlu waaye gën a gëm jiit nag jeex jeexintal na ci nit mën naa simple lool ba ñëpp xeeb ko te buy ñaan muy nangu parce que confiance bi mu am ci boromam subhanahu wa taala moo ko waral kon bu xitali ko dañ koy xitali bu musloo dañ koy muslu rawatina ci seytaane mi nga xam ne mooy ar rajim ku bon ci yii nag mbokk yi buñ ko xamee la wax tamit wax man lam yufithu تجربة فيما يحاول فليرعى مع الهمل lii dox ci àddina nga di ko gis ci ay xeeti xew-xew bu la joxul benn expérience ci li ngay dund bis bu ñu yeewee gétt xar mi ni kaay leen ñu sàmmi yow ku teekul dugg ci biir xar yi ñu sàmmi la ndax doo nit natt leen mbokk yi diggante deux mille ak tey ci àddina bi yëpp diggante 2000 ak tey natt leen ñaata buur ci buuri àddina yi moo xam président la jël tudd moo xam lu ñu leen mën a tuddee yoo xam ne dañ fee daanu lan moo tax may 2000 ak tey bi ma defee seetlu nag dama gis ne diggante 2000 ak tey li ko suñu borom daaneel dafa bari ba ma loolu nit ñi seetlu dañ ko war a def diggante 2000 ak tey puissance yi fi daanu dafa bari moo xam ci réewu Europe yi la moo xam ci réewu Afrique yi la ay ponkal yoo xam ne àggoon nañ ci ngamadeeg ñàkk yar foo xam ni yàlla rek moo mën a nekk seen borom di leen muñal waaye ci diggante bii ci leen daan nga ñëw ba fi nga nekk nga xool barki dem mboo njaay la fi nguur nekkoon doo xam ni même boo jàkkaarloo ñoom doo ñemee sëqat da ngay woote ci rajo nga wax benn baat bu subaa ñu tëj la amoo benn liberté koo xam ne da nga bëgg a def dara mun la doo ko fi defee subhaana rabbil ala ndeysaan booy dox dañ lay xàllal ak loo mën a doon même boo nekkee wàllu yu yàlla yor oto ci tali bi bu dikkee da ngay guus fële mu jàll subhaanallahi alazim yàlla moo mën a joxe waaye moo mën a faqar nit koo xam ni jabaram sax buy dem marché ay motard dañ koy tàttaar koo xam ni xamul suñ boutique yi nu mu mel ndax jaay lépp bëggu ci dara koo xam ni keroog ba mu faloo la gëj a ceeb bi ñuy lekk fii ci dëkk bi lu mu sax koo xam ne xotti yére xeet na ci Sénégal gépp war ngal kap faw mu génn bitim réew koo xam ne jëndeewul ay dàll fii ci réew mi lu dul avant muy fal allahu akbar kooku bu xëyaatee benn bis diggante bu gàtt boo xam ni ñun ñii lépp a ko fekkee wallahi ci suba damaa déglu rajo sama yaram dana ndaw nguur goo xam ne jeex na ñuy interroger ñu ci nekkoon kii naan damay dellu université jàngale ji kii naan doon wallahi la azim sama yaram dana ndaw xool koo mbir mi wàcc ba nga daanu ba amul loo xalaat lu leen université gi nga man mii sax bëgguma faa jàngale loolu la muy wane mooy borom nguur nag ko xam ne nag bërki démboo njaay nga gis benn place buñ ne place bii de ku fi taxaw ñu def la nangam te ñëpp déggal la ci nga am fa doole diggante xafak xit nga ñàkkaat nguur ba yow ni foofa ngay dem taxaw di fa yuqallibu llahu layla wa nahaar naka laa sunu borom mooy duppal ñu mbir koo xam ne yow ah, yaa yoroon nu mu bi muy doole nga xam ne yow booy wax léegi dem leen toroxalal ma diw la ñu toroxalal ko nga dem ba ñu lay woo subhanallah sàndarma ya nga doon yilif yow di leen digal ñuy def ñoom la ñooy maskawaat seen kanam pour yow di la di la di la di la auditer war nañ te jàng jàng bu rëy bokk yi mooy gis ngeen fan yii ña yoroon nguur ni mu ci àddina rek la ñu ngi leen di audité ngir ay milliards ak i millions yoo xam ne fu mu dugg billahi aleykum da ngeen yaakaar loolu suñu borom du ko def lu ko raw lay def kenn ku ci nekk suñu borom dana la audité te gis nga ndombay tànk dafa mën a jay doomu aadama fan yi passé dama am benn barab bu may dem di fa yëngatu ma ku ma tàggu ndeke ka ma war a tàggu bi kooku laa war a tàggu ka ma war a tàggu fekk ma ba yebal ñaari takk der ñu fekk ma fa man mi ma taw ñu ni ma ku la jox fii ma ni diw ñu ne ma dugal fii toroxal ma ci digg nit ñi toroxal goo xam ne maa yàlla rek ko xam may expliqué nanguwuñ maa dégg ma jël samay bagage puus xajal ndax noonu la loolu mooy lislaam bi ma ko xajalee maa ngi koy xajal de ñu ngi ma topp di ma arsala rek maa ngi koy expliqué dégluwu ma topp ko fa muy liggéey nangu maa déglu ma bàyyi ko dem yàlla mi nga xamee ni mooy maalikul mulk mooy buur bi nekkee moom ka ko seefe fii la dëkk ba yàq fii fii laa taxaw ba mu yàgg ma seen waa ji ci oto ma dem waxaat waxtaan ak moom mu ne ma demal jëlal sa daabal nga dem teg foofu bi ma ko tegee ca suba mu ñëw fekk ma teg fa bi ma ñëwee mu xam ni moom jaar naa ci ko ko mag moom ko ko yilif moom bi ma ñëwee fekk mu taxaw pour wan ko ni ko jekku naa la nanguuma koo xool sax ma xool fële man ñetti fan seet naa ko li muy wax démb ci ngoon ci mujj nangootu la jaar sax fi ma nekk buy teeg buy jaar dama koy seet pour am kersa xoolul loolu la nga doon jaay ana mu jeex li ma gën a metti nag loolu li ma gën a metti mooy ki ma may li ma may du jullit sax faf yàlla seede na bi ma ko toppee laaj ñu ne ma kii du jullit xoolal loolu jullit baa ngi toroxal mbokkum jullitam ngir ni ak ak tëni laa sol tëni mooy lan tëni booy nelaw da nga koy summi tëni mooy lan boo dee kenn du la ko yóbbu perkaal sax gën a bëlëri ndax moom mooy dem àllaaxira xoolal yooyu ni mën a jëy doomu aadama tey ñu futti la tey di la ila axirihi kon yooyu doomu aadama bu ko yàlla dénkee lenn ci na xam ne lii suñu borom da koo dénk rek ndeysaan da koy xoolal tey ku woon ña topp ay kilifa yoo xam ni foo jëm dañ lay dar ah tey boo ñëwee ci bunt bi da ngay taxaw bëgg a dugg diw la ñuy àtte ñun la doo dugg ah te yow yaa daan wax doo dugg tey ñun la yow doo dugg gis nga ko de oto bu baax salaire bu baax jox la essence jox la courant jox la ndox jox la lépp nga xëy xëy rek ndeysaan benn bi suñu borom foqar ñi lépp jox ko ñeneen xam ngeen ni balaa suñu xeeti élection yii di xew kenn foogeewul woon nit ñi lay demee natt yi borom xel yi nattoon yëpp njuuy na leen loolu mooy suñu borom mooy borom njuuy gi mooy fan ko foogeewul xoolal koo xam ni yow ñu la fi jiitu ñu la ëpp expérience gën laa nekk ay homme d'état ñoo xam ne ñoom la tiktak yi di woon ni ñoom ñoo koy jël sunu borom mu ni déedéet kaba dogaloon ca azal moom moo koy jël mu jeex kooka it nag gis nga bu dof dof loo borom bi na mu def ay moromam noonu la leen borom li muy def ci doxalinu àddina loolu am njàng la war a doon ñeel doomu aadama yi lépp a soof dekk lépp lu dul ak ngëm yàlla ak mbaax loolu soof ah benn waaye jamono yi passé mi may nettali koo xam ni ab avocat la ci misaal nga xam ni xam naa benn waay moo amoon soxna soxnaam problème ñu dem tribunal ndaw si def ay débat de ba avocat bi jox ko dëgg ngir sabab ñu ngi koy labat ci suuf pour après mu takk ko ba yëf ya passé sëy ba tas avocat bi dem takk ko lii bu ko fekkee moom koy nettali mu ni ma avocat moo dee bi mu deewee ñu tëral ko waa ji daal kenn xamul fu mu génne ca làng ga la génne ñëw taxaw daal di joxe néew bi waaw ah foogoon ni du la jekk bisu tay nag jekku naa la tey nag moom jébbal naa la ka nga xamante nii moom moo la bind bind ma yaa tas sama sëy ngir jël ko bàyyi naa la ak yàlla roccee ko dem nekk ci mbooloo mi am na ñu xam histoire bi nu mu demee mu ni am nañu bari dañoo rocceeku nanguwu ñu sax jullee nii xoolal xoolal ñuy xëy di torop tàngeeg musiba moo tax xëy ndamoo tànk yeeg diw mooy nangam moom mooy président ak mooy ministre ak nangam yu xeet yu soof la gis nga cër dëgg-dëgg mooy bi nit ki am sa boromam subhanahu wa taala cër boobu moom boo ko amee doo ko ñàkk mukk fi yegg yaa ngi topp suñu borom di moytu ay mooy doo ko ñàkk mukk yàlla suñu borom defal na ko meññeent moomu nag bi ñu gëmee ni suñu borom kat moom mooy buur suñu jàqee ci moom la ñuy dem bu ñu tiitee nan ko ñaan ñàkkul dara wallahi ñàkkul dara mën naa yabal loo xam ne xéewal la boo xam ne benn doomu adama du ko indi mu ñëw ci say loxo te loolu ba tey mi gi am laa wax ba tey ba tey am bu leen jàpp ni am de maanaam borom bi subhanahu wa taala dana indi xeeti xéewal yoo xam du jaar ci loxo doomu aadama da ngay jékki-jékki rek mu ñëw ci say loxo doo xam fu jaar ndax suñu borom bi am na yeneen jaam yu gën a bari doomu aadama yii kooku benn la mi ngi aju ci confiance bi ak nit ki na muy ñaanee saa boo ñaanal suñu borom saa boo tiitee ñaanal suñu borom këyit kalaame moom jox ko suñu borom subhanahu wa taala la waa ji ne naa dinaa la yóbbu ci yoon mu ne ko mën a booyee laag yàlla subhanahu wa taala kon doomu aadama yépp dañ koo soxlaal amul ku ko mën a ñàkk lu tolloo tarfatal ayin loolu nag ko yëgee dañuy yëg ni kon mooy mooy buur mooy gorom nguur mooy joxe nguur mooy foqarñe nguur kum neex da nga falu ku neexul moom suñu borom da ngay follee saa bu la suñu borom joxee nguur nag bàyyil xel ni am na fu mu tàmbalee loolu mooy nàmpal ga neex na lool waaye di sa teral ga de boo amul chance mën ngaa beneen bi ci topp nag mooy kenn ku ci nekk ci ndombay tànk yii nu la dénk say te ne yaa ngi mel ni ku bokk ay nañ ci nemmaaral ndax audité gi lay audité te loolu ay nit ñoo la koy def simple la muy wane mooy kenn ku ne ci ñun mbokk yi war naa gën a dolliwaat saytu bi muraqaba diggante ak boromam na nga taxaw ci sa kanamu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan sa digganteeg sa borom amul fuñ naan kaay traduire li yàllay wax li suñ borom di wax da koy xam li muy wax mu di ko dégg nga xool sa ndeyjoor doo gis lu dul say jëf nga xool sa càmmoñ doo gis lu say jëf mu déplacé wu fekk la nga téen ca kanam jëf yi nekkat ëmb déplacé wu fekk la nga geesu ka daali mu ne booy sëgg rek sa ron xanante sa sawara ngay séen kenn rek moo fi des muy suñu borom su boobaa dana laaj ani sagiri wal kabiri lu rëy laag lu ndaw laag sa dërëm dërëm yaag sa ñaar dërëm ñaar dërëm yaag keroog bañ la falee di sàngam ak lépp tey xool ñii di ëpp am na ñu yëgul am na koo ma samay dix mille te gars yi yëguñu am na koo ma sa yàq sa cent mille franc kenn yëgu ko waaye sunu borom moom lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw lépp xam na ko wa wajadu ma amilu xaadiran sunu borom lépp lu ngeen doon jëf ndeysaan jal naa ko jëleel xaar wala yazlimu rabbuka ahadan suñu borom yàlla du tooñ kenn yal na yàlla suturaal ñu fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi alayk yal na yàlla musal ñu ci lépp loo xam daf ñuy jural toroxtaange fii ci àddina ci àllaaxira yal na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu diine yal na yàlla delloo si waat ñu fa yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam te it mu rey ci rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada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 المجيد